dañu woote daje mu doon daje boo xam ni dañu am yéene waxtaane li nga xamante ne euh, jot na xew ci réew mi at yi ñu génne mu doon euh, mbas mi nga xamante ne lëmbe na réew mi bettoon na ñëpp waaye itam sonaloon na réew mi état jëloon ci ay kopparam Euh, lo xamantene da ko jagle lol ni ñi naan le fond force Covid 19 mu ne li nga xamantene mom moom lañ dimbalee ñi nga xamante ne euh, daanaka seen loxo jotul gannaaw ci ba ngeen doon dégg suukar sa ngeen doon dégg euh, mom lañ jappalé entreprise yi ngir nit ñi baña perte seen liggéey waye itam ngir entreprise yi bañ euh waye itam li doon euh structure de santé yi nga xamantene ñom ñoom ñoo li la réponse face à la Covid 19.

jàpp coopérer ni euh, koppar yooyu ak ni mu tollu amoon na solo nit ñi dajé ci tok waxtaan ci bala dajé bi di am euh, état tëral na li nga xamante mu koy comité de gestion du fonds force Covid 19. mu don lo xamante lu am solo la mu don lo xamante lu ñuy rafetlu la ndax buñu dé xol réew yi nga xamante sax daanaka mën nañ japp ni ñoñu gëna sori ci walum bonne gouvernance ak démocratie ay États-Unis ay France fonds yu mel nii jotu fo woon am.

tey ñu ngi fi personne handicapées ya ngi fi euh ñi dëkk ci li ñu naan les quartiers défavorisés ñu ngi fi ñi dëkk ci li ñu naan les zones rurales manam maanaam euh, villages euh yenn communes ñu ngi fi euh, journalistes yi itam ñu ngi fi waaye société civile état ak institution yi euh, téwé nañ euh bi lay dajé ma japp ni rek ñun taxawaay ji ñu ci wara a am mooy déglu am itam oyofte ba nga xamante dina tax ba danañ jàng li nga xamante ne ñun xamuñu ko ndax ñeneen ñii dund euh, li nga xamante ne ñun dund nañ ko mën nañu jàngal loo xamante ne ñun xamuñu ko waaye état itam am na loo xamante ne mën na leen ko wax ñoom ci ni mu doxalee euh, yile resource yi nga xamante ne moom la jagleloon euh, la lutte contre la Covid 19. dañu war a xam ne débat bi warul nekk rek débat politique débat bi warul nekk rek débat wu fichier électoral débat bi Sénégal war na mun a intéresser yeneen xeetu débat yoo xam ne dafay soxal.

waruñu ko négliger au profit de waxtaanu élection waxtaanu politique lolo waral tey jii ñu ànd ak IBP organiser lu melni atelier bi tay ñepp gis nañ ne bi ñuy rapport audit officiel électoral ciowli mo am maintenant buñu ñu génnee rapport comité force Covid 19 war nañu mëna ko càmbar xol ñom ñi nga xam te ñun ñoleen wolu parce que ñi ci nekk.

daan ay nit wala yooyu mais càmbar objectif bi jiitu si moom mooy prévenir d'abord mu am ay njuuj njaaj mais objectif bi ci topp mooy fexe ba bu amee ci yorin ay rëq-rëq ñu mën ko jubanti ci at yi di ñëw te loolu mooy li am solo te loolu moom li nga xam ne moo moo waral suñu daje bi tey nañu xool rapport bi li ci am euh, njariñ ñu jëfee ko li ci am ay rëq-rëq ñu xool nan la ñuy ñun société civile doxee ba lépp lu ciy rëq-rëq ñu yëm ko corriger